وجرهن وعلا ينوي كمالا يا من تعالى عن شركائه ستهدى يا خت هدايا للربايا دون اشتكاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ginnaaw ban sant suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk Bachir Touré dellusiwaat na fii ak yéen mu jëmoon ci xasiid ak Nuuru Daarayni ñu bëgg tënk nag lañ fa waxoon ci fan yi waxoon nañ ne xasiid ak Nuuru Daarayni mi ngi bokk ci xasiid yi nga xam ne xasiid yi salawaat lañ maanaam mooy xasiid yoo xam ne dañ ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne xasiid gi ëmb na làmm na mantuuxu ak mafhamu aaya bi mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ëmm na maanaa aaya boobu waaye tamit ëmm na maanaa hadiisu bi yonent bi sallallahu wax ne man salla alayhi malaka sallallahu alayhi hasanan wa man salla alayhi hasanan sallallahu alayhi mi'a wa man salla alayhi mi'a sallallahu alayhi alfan wa man salla alayhi alfan xaramallahu jasadahu an naar aw kama xaala nga xam ne mooy ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon ku julli ci man fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon ku julli ci man téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni yoon ku julli ci man junni yoon yàlla araamal sa yaram sawara léegi tamit maanaam addis boobu tamit ñëw na ci biir xasiida gi mooy yaa man yaquulu li musali marra xale xasra xatun bira ba àggee ci fi may waxee waxul la si li man xale alpha salal mu naa wa fee jinaan yul fa ba xasiida gi tamit li mu ay bayitam mi ngi nekk mille trois cent soixante-neuf bayit mille trois cent soixante-neuf vers cent quatre-vingt-douze salaatu ala nabi nekk na ci muy téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñaar ci xeetu julli ci yonent bi salaama muy julli yu xe yu wuute julli yu neex julli yu rafet yu mat yoo xam ne yàlla tuddinu war gën a rafet julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi turam wu rafet tëjee ko ñaan yàlla wala sant ko ci lim ko defal nekk yaa muxniyan yaa jaamihan axnayta bi maa jamaxti li kama arrayta salli salaatan tajmuhul xayraati muxjiratan dalail xayraat ala lati li xaada yamul jumaa maalihtama min munan wa jamaa sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi fil xaali ma ali ba tey sëñ baa ngi ko way ginnaaw bi mu jógee ci géej gi kon ñu wax xam ne xasida yi mi ngi bokk ci xasida yi ginnaaw géej gi te yooyu mooy tàmbalee xama saxil naa bi kamin muy 1322 hijriya nga xam ne sëriñ Tuubaa wax na ci xasida yooyu ne kawe nañ lul alxuraan ak hadis te am na barke bu mag bu ci nekk boo xam ne newul ci yeneen yul ñoom te njëriñal àdduna ak njëriñal alaxara mi ngi ci kon ñu xam ne xasida gi ci xasida yi yi mujj la ba tey ci xasida yi ginnaaw géej gi ndax sëñ bi ginnaaw ba mu ko waaye yaa wax nañ ne ñaari at la fi defaat soo koy ñibbisi fii ci Touba nga xam ne kon du sori 1925 wala 26 wax nañ ne at ma ko sëñ bi defee tamit xéewal ga bari na foofu lool njaareem mu am nag lu ñu koy ràññee ci biir xasida ginnaaw géej gi mooy xasiida ginnaaw géej li ci ëpp day doon yu gàtt wala yuñ tënkee aaya wala ay baat waaye moom dafa gudd ba pare tënkuñ ko dara comme ni ma ko waxoon léegi 1369 bayit la sëñ bi tuddee ko Nuuru Daarayni fi xidmati l-aam yi xanil xarit nga xam ne mooy leer gi lay xëcc jëmee la àjjana ak gi lay xëcc sore la sawara ñaari gàcce yooyu mu tudd alaari googu mooy gàcce gàcce ak dugg sawara ak gàcce teg ñàkk dugg àjjana ndax kenn ku ne am nga kër àjjana am nga kër sawara sëriñ Tuubaa su ma wax sama téere bi Nuuru Daarayni la jublu kon loolu doy na ko tedd nga doy na ko traaga sëñ bi di ko laaf jëmale ko ci boppam sëñ baa ngi ko way tamit ci baxaru bu ñuy wax baxaru rajas li ëpp ci xasida gi it sëñ baa ngi ko way ci weeru rajab ak weeru saxabaan sëñ bi tamit tuddee ko ay tur yu bari ci biir xasida gi nga xam ne mën na fukki tur ak ñett bokk na ci tur yooyu bu soro muxaddama salawaatu naamiya al amda kitabatiya nga xam ne bu soro ñëw na benn yoon muxaddama ñëw na ñett yoon salawaatu naamiya ñëw ñaari yoon amda ñëw ñaari yoon kitabatiya ñëw fukki yoon ak benn alxat ñëw ñeenti yoon ba tey bokk na ci mu ko tuddee xurufiya mu ñëw juróom-ñaari yoon xidma wala xidmati mooy itam ñëw ñetti yoon nasmu wala lu lu mel ne saayib ni saam ak nisa nasim ak zaayib ni saam loolu ñëw juróom-ñaari yoon léegi tuddee na ko tamit dinaa sa benn yoon tuddee ko al arab benn yoon tuddee ko saxyu tuddee ko al lusum moom itam lu ci ne benn yoon tuddee ko al misaan li composé xasida gi ba tey mooy julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ma ko waxoon sànq nga xam ne 192 julli ñëw na ca waaye bokk na ci li ko composé tamit sant yàlla nga xam ne wax na ko ci biir wax ne waxabtali min fadlika al azim maa xaadani li sukri bi nasim may nga ma yow sun borom ci sa gënal màgg yi loo xam ne moom wam mat moo ma tax a jug di la sant ci way wi am na lu matu juróom ñaar fukki bayit yoo xam ne ci biir xasida gi bayit yoo xam ne bayit sant rek la te 70 boobu mooy li mu kun fa yakkoon nga xam ne ci biir xasida gi saña ci ne sëñ bi sant na sun borom ci juróom-ñaari biti comme ni mu ko waxee laka sukuur yi alal ayaami yaasal muxaarib al xiyaama samay sant ñeen na la yow yow sun borom ci li mu bisi waaye wasaat bi sukk laka fisal yow mi wa baxdu yaa man xamaa an law mi waaye noonu mu sante suñu borom ci bis it noonu la ko sante ci weer yi comme ni mu ko waxee laka xaaliya sukkur min saxbaana wa xablahu wa baxdahu xurbaana ak ni mu ko waxee laka sukkur rabbi min muharrami li xatmi si li xatmin xorumi waaye noonu la sante suñu borom moom itam ci weer yëpp laka sukkur yi abadan xala suhuuri wali jaare bi suhuurin wa tuhur noonu tamit sante suñu borom ci mboolem at yi laka sukkur yi xalaa kulli sana yaa man taxalaa xan manaa min wasina waaye noonu di sant suñu borom ci mboolem temps yi ci mboolem jamono yi waka saalika sa karabu asmaani comme ni ma ko waxee laka sukkur yi xalaa asmaani yaa maalikan sa maktan maaliktani samaani noonu tamit la sant suñu borom ba keroog àjjana laka sukkur yi ilal ginaani wari ak sakal ginaan samay cant ñeel na la yow suñu borom ba keroog ñuy dugg àjjana teel nga ma sama xel ak sama bakkan waaye noonu la sant suñu borom ci biir xasir gi ci mboolem xeetu sant yi muy sant ko ci ruwam sant ko ci jëmmam sant ko ci xolam sant ko ci làmmiñam comme ni ma ko waxee xam li dawaa ma sukkuril jinaan bi ruuhi wal jisati wal jinaan nag ma may ma saxoo di la sant yow suñu borom ci sama xol ak sama ruu ak sama jëmm ak ni ma ko waxee wàcc xal lisaani saakiran ka xal bi yaa ma ko neen def ba jël da nga def sama làmmiñ ak sama xol yëpp mu di la sant moo tax mooy yow nekk al abdu sakoor mooy jaam bi nga xam ne santaa ko nu suñu borom la kon xasida gis nga xasida rek jullit sant bi la waaye xasida rek sant suñu borom la te loolu am na ci benn bayit boo xam ne rek seer na loola mooy salli salaatan bi salaamin tasmahu biha sukuuri wal mun naa lii tajmu suñu borom na nga julli te sëlmal ci yent bi salaam julli ak sëlmal boo xam ne ci ngay déggee samay samay cant te it ci ngay dajale ci ngay joxe xéewal ba tey bokk na ci li composé xasida gi muy lu ñuy wax asaada awit isaad muy seere ak sàkkoo seere comme ni mu ko waxee wala jaxal te jumlati suxuur lii sawaaxijal mahatuhur yow suñu borom def nga mboolem weer yi ñu nekk samay xere wàccaal bi si suxuur wa ayaama lii sawaaxijal xiyaama na nga def yow suñu borom maa ngi la ñaan nga def samay weer yi ak bis yëpp ñu nekk samay seere nga xam ne moom itam lu mat 32 ñaar fanweeri bayit ak ñaar mat na ko moom itam yoo xam ne yëpp ci wàllu googu la jëm nekk wasaal li daxar bi anni muminun wa muslimun wa muhsinun ulminu nga xam ne bis yi seereel na ko weer yi seereel ko at yëpp seereel ko comme ni mu ko waxee wala jaxal te jumlati suxuur lii sawaaxij mahatuhur ak waj wajxal bi jaaxi suhuura wa sinina liya sawaahida warudul fi man suñu borom maa ngi la ñaan nga def weer yi ak at yi ñu nekk samay seede waaye tamit noonu la ko ay dalwaayam ak ay romwaayam ak ay këram nekkee seedeem wajxal maxar bi wa mamari wa duyoor liya sawaahidan bi afdal xuyoor na nga def samay dalwaay ak samay jaarwaay ak samay kër lépp ñu ma seeral ci gën gi yiw noonu la ko suñu borom seedalee bi kulli xayrin ci mboolem yiw yëpp wasaat leel yow ma wa baxdal yow mi bi kulli xayrin wax mi ni àndami waaye noonu la ko suñu borom seedalee nekk gi mu nekk al abdul xadim wasal yel yowma bi kaw nii abdaka xadima xinda jam yéen jundika nga xam ne kon xasida gi xasida ak julli ci yent bi la waaye xasida ak sant la waaye xasida ak mooy itam saada boobu la te loolu am na benn bayit boo xam ne dajale na ñett yëpp muy salli salaatan bi sukuri tasadu maha salaamin bi falaahi sadu sun borom na nga julli ci yent bi sa julli boo xam ne daf may seeral sama cant ñeel la salli salaatan lii bi sukurin tasadu maha salaamin bi xinaa isaan mooy itam gis nga julli gi feeñ na ci sant yàlla gi feeñ na ci saada boobu feeñ ci waaye ba tey bokk na ci li composé xasida gi muy al asmaaul lahi husna tur yàlla yi gën a màgg nga xam ne li ci ëpp ñëw na wat 47 tur ñëw na ci yoo xam ne ci lasfasna yi la bokk ak yeneen tur yoo xam ne sax bokkul ci yooyu ndax suñu borom am na lu mat ñetti junni tur 99 bi nag dañoo bokk ci al asmaul husna yi tax suñu borom naan walillahi al asmaul husna fadduhu biha udduhu laha aw uddu rahman ay wanta dafa falahul asmaul husna 99 bi mooy asmaul husna nga xam ne indi ci yeneen tur yu bokkut ak yooyu lu mel ne al malik al xayr xayr rafiq jamal muin maahiya al xafaas al murid al mursid mutif ak musil ak musir nga xam ne yeneen tur la yoo xam ne bokkut ak ci la nay waaye bokk na ci li composé xasida gi ba tey muy asmaul nabi turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ñaar téeméer tur ak benn la ci biir xasida gi téeméer ak ñaar fukk ñëw na ci muy cent vingt nga xam ne moo dëppook arafi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun aaya boobu nga xam ne comme ni ko sëñ bi waxee ci muqaddimat am daa laqad jaakum xad jaana maadihan moom itam nga xam ne day wax ne xad jaa aayab xad jaakum ñëw jikkee nañu jógee suñu borom ngir di la tàgg nga xam ne ci biir laxat jaakum boobu rek am na ñetti tur yoo xam ne tur yu capital la ci tur yant bi muy arrasul ak aroof ak rahim arrasul rek boo ko xoolee mbooleem tur yi nga xam ne dañoo dafa dafa làmboo wàllu nubuwa bi ak musal gi mu nekk yooyu yëpp day dugg ci biir nekk nabi bashir nasir daahi ak siraaj ak mustafa ak muntaxa yëpp day dugg ci biir ba tey bokk na ci li composé xasida gi muy tamit alxuraan feeñ na ci ndax sëñ bi tudd na ci fatiha tudd ci baqara tudd ali imran tudd nisaay nga xam ne loolu la ci junj jàngin woo nga xam ne mooy juróom-ñaari fan yooyu ñu jàngat di ko tàmbalee dimanche comme ni mu ko waxee ci biir wan su xale barakaatil fatiha wàccal xilaabi bi fatiha wan su xale barakaatil baqara yaa man yu wajji li xëy saqara wan su xale barakaati al imran fil xaali fil maal ak walay xab bi suut ni say xaafisa saba wala sa nga xam ne loolu li ñuy wax dikru baax di dagal kul da ci dee mooy tudd leen de fekk yaa ngi na mu lépp lépp alxaan la tudd waaye da ko juñ noonu ngir junj jàngin woowu moo tax gis nga ci bayit yi topp ci yooyu mu gën koo leeral wax fataxte li baabal xuyóor yi ma xulakaa baaba suruur yi wax wax nañ xalaxaa nga xam ne faagoogu ngi tàmbale bayt woowu faatixa rek jublu bayt bi ci topp muy bàqata li siral xolo mi nafian yaa mun si nan xëy raxu daa yaa rafian baagoogu mooy tam bàqata jublu awee si ni ileeka yaa kërimu yaa baax yam sukkur arimu moom itam awaytini googu aali imran la jublu nafaytu iblisa uma walaahu ila siwaay samat yàllaahu nun googu moom itam nisaawu nisaa yi la ci jublu loolu moo tax mu wax ca kanam bayt yooyu mooy bayt yam tënkee kas rajab akrama ni tudd ci alxaan mu leer wax kitaaba rabbi nekkal kitaab wa fii ka xaalisaal kitaab zintu makaati ba li wat si mun rek bi ka was ni jàng rek ba fi mu jeexee muy yaquudi maxaka yaa kitaab man xaale fii ka saal kitaab nga xam ne fukki bayit la ak benn nga xam ne loolu lépp alxaan la ci waxal alxaan tamit baatu kon fay kon dafa répété wu dafa ñëw juróom-ñetti yoon ci biir alxaan waaye xasiid gi si moom itam juróom-ñetti yoon yooyu la ko indi juróom-ñetti yoon yoo xam ne dañu koy jàng waaye ak benn boo xam ne da koo tënkee ay bayit muy juróom-ñaari bayit moo tàmbale ci kafaaniyal xaadiru wal moqtadu maa xaasahu minal xanaayal xadaru ba jeexee ci nasaxalil barakatul muqtara wali janaa bi laysa yanhu kadar boo xoolee tamit baatub xidma ñëw na ci xasida gi 31 fois baatub nuuru mooy itam ñëw na ci xasida gi mooy itam 27 fois muy baat yi nga xam ne ñoo composé xasida gi rek ni mu dellusiwaate ci biir xasida gi nuuru ñëw na ak umu soqaatuho ñëw na 27 fois xidma ñëw na 31 fois baatub daari ni moom itam ñëw na 7 fois xaam yi ak la ci aju ñëw na 12 fois baatub aari ni moom itam ñëw cinq fois wala six fois ndax bu fekkee wala sulaxaara bi boole ko ci day ñëw six fois muy waxab loo saxaat daari ni yaaman ka faalu xaara kan naare ni ba tey ci biir xasida gi sëñ bi tudd na ci indi na ci ay turam tudd na ci boo xam fukki tur ak juróom muy lu mel ne alhabdul xadim ak alhib wal xillu ak asakir ak muminul muslim muhsin ak almuqaddam ak alhabdul sakur ak nurul bulaxa ak muallima ak hujuba ak sudur al muttaqin ak alhabdul xani ak noora jumlatul tulaab wa xubaat wa soxaat ak busral qawmi ak al asmaal xadim waaye tuddee ci boppam tamit asaari soo ko tasee mën naa dem ba mat 21 tur waaye gis nga baatub xayaat yi ak xumri yi mooy itam sëñ bi indi na ko ci biir xasida gi lu mat 33 fois nga xam ne loolu dafa mel ne gisuma xasida gu bari sëñ bi da ci tudd lu jëm ci dundam surtout tudd ko nag baamu ko lu toll ci lim ba mu wax muy 31 34 fois muy baatub xayaat yi ak baatu xumri yi nekk wa bi xayaat yi te sooxul wajalaa li xëy na abadan alxajala ak waccal xayaat yi lahu suróora abadan waskur li buróora ak waccaxal kitaabati ilayka xayda waccaxal xayaati lina bi fayda ak wastaxalahu bihi kitaabati bila raddin wa humuri bihi taqabala nga xam ne kon dënam googu nga xam ne dafa fees dell ak ay xar baax comme ni ñu ko waxee xustu xayaatan la tura li xëyri muxjisan baan taqalifan gis nga dafa mel ne xasidi kon dafay symbolisé dafay wane dund Seexul Xadim googu nga xam ne feeñ na ci biir foofu waaye boo ñëwee ci biir xasidi gi tamit li ñuy wax ci ilmu badi mus mustaxsanaatu lafsiya ak wal maxnimiya feeñ ci lu mel ni al jinaasa mooy xeetale yi ñu daan xeetale moom itam feeñ ci jinaasa taam am na ci ak jinaasa xayru taam am na ci ndax ñaari jinaasa yooyu rek moo am boo xoolee yallaahu yaa samat innaka al ahad wa xuttali joduka minimum ahad gis nga ñaari ahad yooyu li ñu nuru du ay arab solo was waaye bokkuñu tamit li ñuy firi yallaahu yaa samat innaka al ahad wa xuttali joduka minimum ahad ahad bi mu ngi ci jublu kenn ko borom gi nekk gi mu nekk kenn waaye ahad ba ci def nag mu ngi ci firi tamit jour bi ñuy wax dimanche yamul ahad gis nga yallaahu yaa axiru antal awalu yaa man bi yesu rabbihul awal gis nga ñaari awal yooyu tamit bokkuñu li ñu firi bi kenn ak yàlla ki nga xam ne moom mooy ki njëkk le premier bi mu doon bii tamit mu ngi ci juddu rabbihul awal gis nga wantulon alaya barakaatil fatiha wajxal xilaami lil xuy fatiha gis nga ñaari fatiha yi tamit bokkuñu li ñu firi ak xutana rusuxa wal yaqina yaa man saqan wa ahlahu yaqina gis nga ñaari yaqina yooyu tamit ba tey li ñuy nuró nuró ci yàq ak ci ay araf bokkuñu li ñuy firi loolu la ñuy wax aljinaas tam mooy waxabtali suroxa naka lu mel ne waxabtali suroxa saha yaaman kafaani kadraat saa gis nga ñaari saaxa yooyu ba tey bokkuñu li ñu firi saaxa mooy comme waxtu yi suñu waxtu yi saaxa ba ca mujj nag mooy yowmal xiyaam comme ni mu ñëwee ci aaya ba wa yowma taxuma saxatu yokk si woon mujj moom maa labisu xayra saaxa jën gis nga ni ko alxaaj ne ñaari saaxa yooyu li ñu nuroo nuroo bokkuñu li ñu firi loolu la ñuy wax aljinaasatu taam aljinaasatu xayra taam moom itam ñëw na nga xam ne loolu tamit feeñ na ci alxaan comme waye naaw naxnu ñëw na ci alxaan lu bari bari ñëw na ci xasiir gi tamit moom itam mooy yaa amiran bi an nusalli ala nabina baabil xulaa gis nga foofu ala ak xulaa gi gis nga nuñ nuroo waaye loolu la ñuy wax jinaasul xetaam ak wala ya xutta fawxa soxli wal muna wa fuxtu ala xarafatin wa mina gis nga foofu wal muna ak mina gi noonu ñu xawee nuróol loolu la ñuy wax jinaasul taam loolu moom itam feeñ na ci biir xasidi gi fës na ci bu wér wér waaye ba tey bokk na ci yi feeñ ci biir xasidi gi mooy li ñuy wax lu suuma laa yatam moom feeñ na ci bu baax a baax nga xam ne sëñ bi ko xam mbindam xam nga ne li ëpp ci ay rajo tam dafay ànd ak lu ñuy wax lu suuf mala yar tam te loolu boo xoolee xasir gi yëpp njalbin xasir gi ba xasir gi jeex loolu moom la nga xam ne alhamdulilah li yusalli xalala bil muntaxa musalli gis nga ñetti araf yooyu nga xam ne moom la mujjantale loola mooy lu suuf mala yar tam loolu feeñ na yaatu na ci xasir gi bu baax a baax ba tey it bokk na ci li nga xamee ne feeñ na ci biir xasir gi mooy lu ñuy wax al iqtibaar loolu feeñ na ci biir xasir gi te loolu mooy waykat bi wala ci taarix xasir gi jël loo xam ne dafa bokk ci alxuraan wala ci wax yonent bi mu ràbb ko togg ko dugal ko ci biir xasida gi ba mu- ci biir bayt bi ba mel ne daf caa dëkk te fekk ci alxuraan la bokk loolu feeñ na ci xasida gi boo xoolee kitaabu rabbi innaka al kitaabu wa fiika xaala zalika al kitaab gis nga zalika kitaab boobu baatu alxuraan la mooy alif lam mim zalika al kitaab waaye gis nga ni ko suñ bi ràbbee ci bayt bi mel ne foofu la bokk ak yaquulu ni maxaka yaa kitaabu man xaala fiika zalika al kitaab ba tey gis nga bayt bi tamit salli salaatan lii tuxalidu walan tan fil xidaa maxan bi sirin waxal gis nga walan boobu baatub alxaan la bokku ci bayt bi waaye sëñ du ko indi dugul foofu loolu la ñuy wax al iqtibaas walan gi mi ngi ci jàpp walan yecci xallaahu lil kaafiriina xalal muminina sawiran bu dee ci xadis gis nga xalal si tanhoo lahoo niyaati wa innamal ahmaalu bi niyaat gis nga loolu mooy itam hadis la wax yonent bi la gis nga ni mu ko toggee ci ni mu ko rabbee ci biir bayt bi li ñuy wax at tajmis mooy yu war a ànd ànd yu nuru ànd moom itam feeñe ci biir boo xoolee alxaan toujours day tudd day day tudd yàlla lay wax ak sant yàlla yooyu tamit xasida gi doon la ko indee faskuruni askurukum waskuruni wala takruni gis nga sëñ bi ko ci biir bi dikri wa sukri bila kufraani ak yaamoon lahu dikri wa sukri bil xisaani gis nga yooyu lay boole